déedéet moo tax ci biir plan bi nga xam ne ñun dañ cee gëstu woon ñu ne ñaari at bu nekk dana nu taxawal ñaari banque yoo xam ne capitau yi c'est à c'est des euh, capitaux sénégalais lay nekk à cent pour cent xaalis ba fañ koy jëlee dañ koo wax teg ko ci taabal ji xaalis ba fañ koy roccee fa la muy jariñ ñu génne ko teg ko ci taabal ji ci wàllu nu ñuy financer économie bi ba tey c'est important de le dire li ñuy def ci walu fruit Sénégal day jënd ci at mu nekk lu ëpp ñaar fukki milliards ci fruit bu ñuy jëlé bitim réew Bima ci gëna metti nak moy banane bi c'est important Bo démé Ndiandane dans le département de Podor dañ fay bay banane. Bo démé Gulumbu dans le Sénégal oriental dañ fay bay bana boo démé dans le triangle bi nek Goudomp diggante Mangarungu Samin ak Yarang Balant dañu fay bay bana Banane bobu ñu fay bay mu nek banane de qualité indi won ko ci zone de consommation bi donc modeste. mais am ay gouvernement yu ciuné. am ay gouvernement yo xamné sen vision weesuwul jam ñaajo moo ñu nekk ci situation yi ñu nekk kon chers compatriotes mbéjum kanam barom mom moo koy fajal boppam xam leen ne li defar réew mi ci seen loxo la nekk ñii fi ne mësuñu leen dig lu ñu def et tey je suis à l'aise d'en parler ci benn émission ak pap Ngagne dama ne leen Sonko jënd na glace ci CFA na ci ngeen secrétaire général gouvernement lu le franc CFA est amélioré. jënd nañ glace nañ ci xam nga dafa am ay wax yoo xam ne wax ñu duñu comprendre mais man jàpp naa ay waxi dof la projection croissance ñaata lañ ñu wax nous avons projeté croissance xam le Sénégal kañ la weesu 6 point 2014 lañ ko Nous avons ñuy une projection de croissance de 6.5. point 5 Nous, de de la Nous bëgg dañoo bëgg avons bëgg toroxal bëgg toroxal Sénégalais Maintenant, ce c'est à votre niveau. Ce qui est, c'est le secteur informel. Nous avons 3 500 000 entreprises individuelles. 3 500 000 entreprises individuelles. Si nous avons un gouvernement smart, un gouvernement intelligent,

bu amee ñeneen ñuy rocci suñu xalaat di ko jëfandikoo si c'est pour le bien du pays alhamdulilah man xam naa ne bëgg nañu man xam naa ne Sonko bëgg na mais man bir na ma ne Sonko am na yéene mais mais doom day mënul non mënul mënul en tout cas lii laa jàppoon ne war naa la vision Sénégal 2050 il faut ñoom ñi yore réew mi ñu xam ne réew du ñi ci kaw ñoo koy defar ci suuf lañ koy defare et réew boo koy qui ci suuf da ngay ànd ñi nga xam ne ñoom créateur de richesse yi ñi nga xam ne ñooy créer ay entreprise ñi nga xam ne ñooy liggéeyloo ay doomu aadama ñi nga xam ne ñoo am xam-xam pour def création de richesse ñooñu ngay àndandool encadrer leen pour que ñu mën a defar Sénégal yàlla xam na ne am nañu ay nit ñu am xam-xam am nañu ay nit ñu am yéene ci réew mi waaye dafa fekk ne ku ñu boolewul ci mbir ku ñu woowul ci ngénte boo fa demee boo tojee kaas di nga fay maa ngi ñaan yàlla yàlla sàmm Sénégal di ñaan yàlla yàlla dimbali ñu te di leen wax rek ne xam naa ne fi mu nekk nii waxoon naa leen ko moom mi jiite réew mi Ousmane Sonko dafa am ay journaliste am yu koy fenal oui moom Ousmane Sonko dafa am ay agence de communication am di ay maison de presse yu nekk ci réew mom Ousmane Sonko dafa am ay influenceurs yo xamne ne ci ñi wax muy dox lañu bok bir na ma ne bu suba ku ci nek dana tax laalo di wax ci bugaat mais dama bëgg ñu xamne lolu defuma tarafatal ay plus ngeen di gën di wax ci man plus ma gën di leena song plus ngeen di gën di fen plus may gën di génn di leeral tey jii woo ngeen réew mi cim bu ngeen ko defee bu jeexee 15 heures bu 17 heures ma woote bu ngeen ko defee 20 heures bu avez 20 heures bu 22 heures ma woote mais bii moom xam naa dama leen ñuy parce que bële dañu programmer 10 heures ma def 17 heures ñu avez ñoom 16 heures ma def 19 heures. mais bii dama leen bàyyi ba ñu lancé seen invitation ba tey ci suba ma daal di wax sénégalais yi ne la ñu wax foofu ci ay contre vérité la ñu wax foofu ci tuur lëndëm la ñu wax foofu ci dóor marto la ñu wax foofu ngir nax sénégalais yi parce que bari na ci ñoo xam ne ay fasu kayit lañu fu ñu fu ñu yàgg rek ngelaw leen fa ba bari na ci ñoo xam ne lu ñëw yóbbu leen ñooñu la ñuy waxal su ma benn xarit économiste sànq daf ma wax ne ma ndaje mi ñu amal ce c'est pas pour les intellectuels. Hmm. Et je voudrais saluer Eliman Khan pour Leg Africa. S'il y a une intervention pertinente, s'il y a une intervention qui a véritablement retenu mon attention, de par sa pertinence, du fait de ses analyses pointues, c'est l'intervention de Eliman Kan bu Leg Africa li wax wax j'espère que jomay dina ci bàyyi xel et bu ngeen bamuy wax waxula kenen de la doon vous lam ko waxit wax nit mun a xel moy ne ay nit di plan da ngay and ak ñom déglu len ba xam soxla jël plan jël ay nit ñu dugg ci roq ab plan ne plan bi moy doxal Sénégal li doxal Sénégal lu ñuy mànkoo lay doon luy doxal Sénégal lu ñuy déggoo lay doon luy doxal Sénégal lu kilifa diine yi di ñaan lay doon li doxal Sénégal day jël en considération mag ñi ndaw ñi jigéen ñi ñëpp ñi nga xam ay forces vives de la nation lañu force vive yooyu ñu ngi leen di pour le 17 incha allah la coalition sàmm sa amenée par Pape Djibril Fall par Thierno Bokoum par Anta Babacar par le PUR par Détier, par Barthélémy Diaz mi nga xam ne moom suñu tête de liste gis ngeen ko fi léegi ci ay liggéey yu ñu c'est juste pour dire ce bloc générationnel